yi dal leen jàmm ñu di këkk yenn ci li gën a ci xibaar yi dañu koy dooree ca waaxi wakaam ak fukk ak ñett ci ay réew yu nax saay ca waaxi wakaam ñett ñuy ci sauvé ak ñu bëri ñu ci réer bilang gaal gi këpp ca waaxi wakaam gaal gi doon dem biti réew bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango presse Afrique bilang bi ëpp na fukk ak juróom mu ngi ci léegi fukk ak ñett ñu ci ñàkk seen bakken ñett nit ñu ñu ci sauvé ca loolee jëwriñ bi ñu dénk wàllum mbir réew mi Antoine Félix Ndione demoon ca opital bu Wakam eh, ne si xibaar yi nu jot ca Caaroy la gaal gi déparé doon utali biti réew te it ubbi nañu ci ab enquête képp ku si dina dinañu la eh, teg ay daan yu metti eh, ci gaal gi këpp ca waaxi Wakam la ñuy des ba tey ak kii di Boubacar Seye joxoñ baaraamu tuuma nguurug Sénégal Boubacar Seye jiite ONG bi di Horizon sans frontières daal di àddu si xale yi jëloon na gaal gi ngir utali biti ci réew e te mu këpp ca waaxi Wakam jur fukk ak juróom-ñett ñu ci ñàkk seen bakken ñett ñu ñu ci sauvé ak ñu bëri ñu ci réer mu si joxoñ baaxaamu tuuma nguur gu la teg si ne lii di état daa mel ni euh, kuy banaliser ñi ci faatu ci xibaar yi la ñuy des ba tey ak wu chauffeur yi tata yi door ko niki démb ci altine ji euh, ñoom ñëpp daal di banque seen loxo benn euh, tata dawul ci département bu Rufisque ak Pikine askan wa fa nekk am jafe jafe-jafey dem am jafe-jafey dem bekk dikk bi lii di arébus yi fees del ak ay client ñu mujjee di jël lii di njaganjaay yi car yi ak sax moto jakarta yi ngir mën a dem bu ñu sukkandikoo ci Dakar Actu ñenn ci askan wi ne comprendre nañu bu baax seen grève bi waaye dañoo waroon a jiital lii di négociation yi moo gën ñuy gàllankoor dem bekk dikk bi ñii di chauffeur tata yi door ab grève ñetti fan ngir sàkk ñu joyante seen condition yi ñuy liggéeye yokk seen payoor rawatina condition yi métti yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel ci seen wàllu liggéey boobu gannaaw ba ñu barricade këram ca cité kër góor gi ba mënul dem mënul la dikk njiite la Pastef Ousmane Sonko ñu daal di dindi lii di barricade yi ni ki démb ci altine ji waral forum justiciable di rafetlu ak politique bu rafet bi gouvernement bu senegal def di dindi barricade yi ñu defoon ca buntuka usmaan Ousmane Sonko ca wàll wa muy woo njiita la Pastef tamit Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ñu bàyyi lépp luy indi na wala sax ay trouble à l'ordre public xibaar yi biti réew ca Cameroun lañu jëm ak benn immeuble bu daanu ca Douala jur fanweer ak juróom ñaar ñu ci ñàkk seen bakken ci guddik samedi jàpp dimanche la benn immeuble bu ñeenti étage daanu ci benn bâtiment résidentiel la benn étage lii di bilang bi ñu fësal ko niki altine ci ngoon ñi di sapeur pompier yi di wëyal ak seen ko wër niki altine ba léegi. ca Douala nekk ca capitale économique bu na gannaaw bi immeuble bi daanu ci guddik samedi jàpp dimanche ca saase fanweer ak juróom ñaax daan nañu ci faatu ñaar fukk ak benn am si ay gaañu gaañu yuy métti ci ñaar fukk ak benn yooyee juróomi ñoom ñu ngi ci diggante dund ak dee bu ñu sukkandikoo ci Samuel la Ivaya Doumbouya di gouverneur du littoral la bokk ci fukki région yu na lii moo fi ruuse woon ci ay xibaar way leen di ànd ak programme Kabira TV